arbitre bi sifflé na ñu ngi dox Bombardier ngi dox Bombardier ngi dox Gris Bordeaux topp na ko dem nañu ba ci saaku yi Gris Bordeaux Bombardier Gris dóor Gris Bordeaux dóor na wala mu cokkaas Bombardier mépp na jege woon Bombardier Gris Bordeaux songoon nañu Bombardier amul fu mu jàpp de Gris Bordeaux ngi dóor Bombardier ngi dóor Gris Bombardier Gris Bordeaux daan na Bombardier Gris Bordeaux na Bombardier lamb